Euh, vraiment, j'étais rapproché par votre dirigeant. Ils sont venus me voir au bureau. On a un peu discuté. Moi aussi, comme vous le savez, j'ai déjà parcouru pratiquement Djarna fi fi ngeen jaar tey université en 93. Bon, man xam naa ne peut-être le président des mouvements Ànd Soxla Sénégal. Je ingénieur de formation. Donc, j'ai mon master 2 en aménagement des infrastructures publiques. En même temps, je ingénieur géomètre. Donc, je euh, dans la donc vous le savez et voilà quoi je suis un Thiessois comme vous donc aussi man à mon niveau je pas laisser mes comment on appelle mes étudiants étudiants Thiessois être dans de mauvaises conditions mhm. donc c'est pour ça que man je suis vraiment pour venir pour apporter mon appui mhm. dans tous les sens nag pour vous conseiller surtout aussi d'avoir l'esprit de grandeur avoir un esprit de dépassement xam leen lan moo éviter toujours aussi surtout aussi il faut aussi nga xam ne tamit yéen ñi di ngeen jóge Thiès pour ñëw lan pour acquis de savoir mhm. donc yéen vous êtes vraiment notre les les, les de demain du pays mhm. donc man aussi je suis comme vous j'ai passé par là tey nag j'ai décidé de venir voir qu'est-ce que je peux faire pour vous d'abord mhm. nan laa leen di jàppale si seen condition euh, ni ngeen di jàngee nii ah Donc euh, je l'ai fait aujourd'hui, à, dans des, différentes universités des régions. J'étais à Gigensor récemment, j'ai rencontré Jean Gigensor, j'étais à Bambay, j'étais à Thiès. comme je travaille ici à Dakar, c'est pour ça aujourd'hui j'ai demandé à venir ici à Dakar euh, euh, pour vous rencontrer, discuter avec vous. En fait, réalité, quels sont vraiment vos problèmes primordiaux Conseil que je vous xam li leen tax a jóg vous êtes Thiessois vos parents comptent beaucoup sur vous vous l'avenir demain vous l'avenir du pays donc li ma leen di conseil mooy ne ngeen gën a góorgóorlu ngeen gën a si jàng bi ngeen def euh, ngeen bañ a ñitti di leen yóbbaale xam leen tax a jóg parce que ñun ñu tous on est des Thiessois on est les futurs de demain donc c'est pour ça tey ma ñëwoon uniquement pour rendre visite pas pour faire de la politique parce que c'est naturellement, c'est dans mon sens pour venir rendre visite à mes frères qui sont là. comme nous le savons toujours, j'ai toujours été proche de la population. Ça me devait être, moi un mouvement, c'est un mouvement politique, bien que je suis allé de président, mais je, je, je, je m'active dans le social et développement. Donc c'est pour ça que je suis venu. Je suis étudiant, je suis xool yan conditions yoo xam ne tamit nan naa leen mën a jàppale incha allah pour seen ja étude mën a avancer pour ngeen réussir incha allah ngeen delluwaat Thiès. donc li may mooy rek fexe leen ngeen jàppalante. parce que ngaay bi amul solo waruñ dëkk Thiès dëkk Thiès. dëkk Thiès ba pare ñëpp ñi ngaayoo loolu du sotti il faut ni sottante jàppalante ku laal benn doomu Thiès laal nga ñëpp man loolu laa moo ma tax a jóg tey ngeen àndandoo nekk na benn ngeen bàyyi li rivalité tendance amul solo ngeen góorgóorlu ngeen xam ne tamit lan moo a jóg mooy c'est parce que yéen ëllëg yenn la pays bi yéen yéen la dëkk bi yaakaar Sénégal yenn la yaakaar suba def leen loon seen bopp man si vraiment di leen sant bu baax di leen gërëm di leen que man maa ngi seen ginnaaw seen frère la seen nijaay la jër ngeen jëf. Bonsoir, Thiessoises et Thiessoises. Bonsoir, chers sœurs et chers frères. Ok, bonsoir à, à la délégation de, de M. Habib Nyon. qui a fait une très longue distance pour venir s'enquérir de la situation des jeunes frères et sœurs qui sont là à l'université Cheikh Anta Diop. Chose qu'il a eu à faire aussi à Ziguinchor, qu'il entend faire à Saint-Louis, à Bambay et à Kaolack dans le Sine Saloum. Donc, je ne sais pas auparavant ce qui arrivait là, mais vous avez un médecin, vous avez un messie aujourd'hui là, devant vous. J'ai entendu une fille dire dans la chambre, donc il y a beaucoup d'autorités qui ont eu à passer. Et donc, il vous l'a dit dans, au pavillon A. Il était étudiant. Il a eu à vivre ce que vous vivez maintenant. Et c'était pire. Parce que moi, j'étais au pavillon G. J'étais là comme étudiant. Je suis professeur maintenant. Si on a tout laissé et suivons Abibnia, c'est parce qu'on a vu c'est un quelqu'un qui fait la politique ou bien qui agit que pour l'intérêt de Thiès. Aujourd'hui, on se, comment on se soucie pas des listes Il y a une personne qui est venue pour Thiès. Aujourd'hui, c'est Thiès qui compte. Il faut que l'on fasse sauter les barrières de liste. Il faut que maintenant, si vous vous tuez, à cause de ces petits trucs, donc ça veut dire que Thiès ne vous intéresse pas. Et Abimia n'est pas là pour ça. bi may ñëw euh, d'abord euh, dama indaale benn ay ay ay indaale naa leen ay ticket restaurant de mode de euh, ñaar junni junni ticket may leen ko. en même temps benn imprimante dimensionné bu ànd wifi en même ay rames de papier pour lan pour jàppale leen épauler leen parce que xam nañu conditions yoo xam ne jaan yi nekk waaw euh, ak le public monsieur Macky Sall euh, ñun dañu bëgg toujours être proche de la parce que ñun li ñu yitteel mooy askan bi mu yitteel kenn yitteelu ñu on fait pas defuñu politique politicienne parce que ñi aussi suñuy rakk suñu àjjarbaat lañu parce que xam ngeen condition yi nekkee d'abord et puis en tant que seen avocat en tant que ambassadeur mooy leen mooy d'abord accueillir la situation indi sama ndimbal ak ñoom noo ko xamee ñoom aussi vraiment allah tamit euh, seen coordinateur bi ak ñeneen ñeneen def na délégation ñooy sasi ma sama bureau waxtaan man expliqué ma vraiment tamit condition xam ne étudiant yi ko dund ma ne man de sama gor mayu ma ko parce que defoon naa ko Saint-Louis euh, def naa ko Ziguinchor à Bambey donc man mu divaat mooy à Dakar aussi tamit ma def si nëmbal si waaw lancé naa ko sànq wax naa leen ko mën a leen sinatoir mën a leen éviter tout il faut toujours être ñe conscient leen yóbbaale leen éviter xam leen da ngeen bàyyi ay ay waajur ngeen bàyyi yaakaar si yéen donc yéen li ngeen war a def mooy xam ne lu leen tax a jóg xam leen jàng moo leen tax a jóg li may conseil mooy góorgóorlu leen jàng leen de façon vous avez un frère qui est derrière vous pour Habib Niang a pris son bâton de pèlerin pour que Thiès, comme vous avez eu à le dire, pour qu'il y, y, a certaines sœurs qui l'ont dit, Thiès, c'est la deuxième ville du Sénégal. Mais Thiès a des problèmes partout. Vous savez pourquoi Parce qu'à Thiès, on ne reste pas unis. Oui, les gens font tout pour que les personnes, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la religion, que ce soit dans l'éducation, les gens sont, font tout pour être désunis. N'acceptons plus ça. C'est pourquoi aujourd'hui Abibnian est là. Il faut fédérer non pas les étudiants de Thiès, mais tous les étudiants ressortissants de Thiès dans les différentes universités du Sénégal. Son but, c'est ça. C'est que vous, soyez à l'aise, que l'on puisse pas venir l'année prochaine. Il y a une fille qui l'a dit, je ne sais pas si c'est des élites ou pas, qui a dit donc, aidez-nous à ne plus vouloir vous tendre la main. Habib, son, souci, ça, Son but, c'est de vous aider à ce que vous n'ayez plus besoin d'autorité, que vous soyez vos propres autorités, vous soyez autonome pour que Thiès puisse aller de l'avant. C'est ça, Monsieur Abibnian. Et j'espère que... Oui. ceux qui viendront prendre la parole mettront Thiès au devant de la scène comme M. Abibnian le fait, le fait du moins. Je vous remercie. C'est pour moi un grand plaisir de devoir parler au nom des, des, des étudiants Alors, Nous tous, comme nous le savons, nous sommes là pour euh, faire part de notre cri de cœur. Parce que voilà, en tant que Tchessois, tout en chacun d'entre nous, c'est très bien ce qu'il est en train de vivre au sein de l'université Cheikh Anta Diop. Une situation que nous déplorons également. Parce que voilà, nous avons quitté notre région. Nous avons eu le bac, ce qui a fait notre joie. Nous venons en ce lieu pour travailler. Sauf que, à notre grande surprise, il n'y a personne pour nous aider. Ce qui est déplorable, ce qui est malheureux. Parce qu'en en fait, s'il nous a été donné, par exemple, de faire un recensement, ce qui euh, serait noté, le constat qui serait fait, malheureusement, c'est que les, les, les étudiants tiessois sont les moins logés ici euh, au sein du campus social. Pourquoi cela c'est anormal vraiment c'est anormal et c'est malheureux parce que après Dakar nous pouvons noter que Thiès est la plus grande région pourquoi les, les villages qui sont au fin fond du Sénégal eux ils sont capables de gérer les étudiants qui proviennent de ces villages alors que Thiès une si grande région vraiment il n'y a même pas 5% des étudiants qui sont logés ce qui est anormal nous souffrons c'est malheureux de voir un étudiant abandonner ses études pourquoi Moi, par exemple, en titre de témoignage, j'ai dû reprendre l'année parce que tout simplement, j'ai pas été logée. Où sont les amicales qui sont là, en fait On entend parler des amicales, mais qu'est-ce qu'ils font Je dirais qu'on entend que des échos, mais on ne voit pas les actes qu'ils posent. Mais non, nous rendons gloire à Dieu pour des révolutionnaires qui se soulèvent. Nous rendons gloire à Dieu parce que nous voyons des gens, des jeunes comme Bassirou, comme qui veulent au moins relever le défi au sein de cette université. Eux, ils ne sont pas pourtant au pouvoir, mais nous pouvons voir ce qu'ils sont en train de faire. Ces gens-là, s'ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire Vraiment, qu'on se dise la vérité. Et nous, en tant qu'étudiants étudiants soir, nous sommes prêts à les soutenir et à soutenir tous ceux qui s'engagent à les aider. Vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Euh, pour votre présence. Aujourd'hui, ce pas facile. Nous sommes tous des étudiants. Euh, on a des choses à faire, on a des cours à réviser, on a beaucoup d'activités, mais on s'est sacrifié pour être présent aujourd'hui. Euh, je tiens aussi à remercier Mouchignan de nous avoir, euh, de accordé cette visite. Parce qu'en fait, euh, les étudiants de Thiès souffre énormément à Dakar. Moi, je suis un témoin oculaire. Parce que depuis trois ans, je suis là. Je n'ai jamais entendu parler l'amicale de Thiès faire quoi que ce soit pour les étudiants de Thiès. Ça, c'est déplorable. Parmi nous, il y a certains que je ne connais pas et ce n'est pas normal. Ce que nous voulons aujourd'hui, je suis membre de la liste Renaissance en coalition avec la nouvelle vision. Maintenant, aujourd'hui, notre objectif c'est quoi C'est de fédérer les Thiessois leur mettre euh, sur la même longueur d'onde travaillons ensemble mais dans la main pour servir Thiès ñun Thiès moo ñu ñor monsieur maa lay remercier je tiens à remercier aussi Malick Fall et monsieur bas parce que sans eux l'amicale de Thiès n'aura pas de leader parce que ce sont des leaders charismatiques je des leaders charismatiques ils se sont ils, su lever la voix là où certains sont restés euh, dans leur coin à ne rien dire. Parce que cette situation, c'est catastrophique. Il y a nos jeunes frères euh, venir. Si cette situation ne change pas, ils ne pourront pas deux mois ici. Parce qu'on voit des chambres de plus de 20 personnes, 25 personnes. On a du mal à dormir. L'étudiant a besoin de manger, de dormir, d'avoir un minimum de tranquillité pour pouvoir assurer un résultat. Merci beaucoup, je vous remercie. Salam maa ngi leen nuyu yee ñëpp ku nekk ci sa tur ak ci sa sant ñu ngi leen di sant bu baax tamit ci visite bi monsieur abib Niang ñu ngi lay sant bu baax ci visite bi ñu ngi ci kontaan kontaan tey nag li nga ñëw ci jigéen ñi kontaan tey li nga ñëw ci jigéen ñi seet si ñu fii ñëpp xam nañ ne condition de vie yi ñu dëkkee dafa metti metti na trop metti na ba ci kanamu yàlla chambre yoo xam ne dafa war a def au maximum douze personnes ñu ci ñu ci ñu ciy sol di ci sol di ci sol ba trente personnes dañuy tëdd chambre bi lii dañuy fees lii yoo xam ne benn personne la wala def par deux personnes lañ ciy tëdd lii lii yi ngay gis deux personnes yoo ciy tëdd matelas yee ngay gis nekk ci kaw dañ koy lal di lal di lal di lal ba fee ba ci bunt bi dañ koy lal condition yooyu yëpp yëpp ñëpp xam nañ ne metti nañ da ngay xëy xëy fajar war a ubbi sa armoire xool ay bagages yoo war a jël wala sa yëre doo ko mën da ngay jéggi ay bopp lu ne nga di ko def loolu ñëpp xam nañ ne metti na sécurité tamit amu fi da ngay teg say bagage ñëw doo ko fi fekk voilà loolu yëpp tamit metti na te ñi ngi buggoon bëggoon nañu tamit nga jàppale ñu ci bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax malade yi aussi bari nañ fi man kolopati naa fi yàggul dara sama copine beene typhoïde na fi yàggul dara donc malade yi bari nañ fi biir yu daw yaa ngi fi bopp yu metti yaa ngi fi lépp a ngi fi loolu nag yéen yéen ci yéen ñu ci mën a jàppale lekk bi tamit dara baaxu si resto yi mooy loolu donc suñu amoon tamit benn aide boo xam ne dañuy jël ravitaillement tegal ñu am lu ñu tegal jàppalee ñu ko nga xam ne de temps en temps dëgg la dañuy jàngi amuñu temps mais de temps en temps ñuy togg wala di defaral suñu bopp tamit lekk ay aliments yu sen di di dund ci ci milieu bu sain tamit bëgg nañ ko ñun daal loolu moo nekkoon suñu problème suñu millier de vie bi baaxul dundin bi baaxul condition de vie yi métti nañ te ñëpp xam nañ ne li góor ñi mën a supporter ñun ñuy jigéen ñi mënuñu koo supporter donc faw ñu jàppale ñu ci fii autorité bu nekk jàll na fi te ku ne da ngay jàll rek da ngay ñëw wax sa wax dem gisuñu ci benn avancement gisuñu ci lenn loo xam ne mi ngi ñuy jëmalee kanam donc ñun daal bëggoon nañu nga jàppale ñu taxawuñu ndax ñun ay jigéen lañ te ñun ay jigéen bëgg nañ ko ñu jàppale daal teg ñu fu ñu war a teg. ndax ñun ñii les étudiants nous sommes l' avenir du pays donc yéen yéen a ñu mën a jàppale teg ñu suñu place soo la ñu tegul suñu place rek du baax waaw loolu laa amoon li ma lu may wax maa ngi leen sant yéen ñëpp di leen gërëm di ñaan monsieur Habib Niang nga jàppale ñu teg ñu ci yoon dimbali ñu bu baax a baax a baax a baax a baax di la ñaan tamit nga bañ a def ni suñu moroomu seen moroomu autorité yi nga xam ne dañu fiy ñëw daal di wax seeni wax dem duñu gis avancement benn côté tamit ñi ngi sant monsieur Bassirou mi taxaw ndax tey amaana sa sa sa présence li ko waral moom dox na ci ay jéego Malick mi tamit dox na ci ay jéego te boobu ba léegi mi ngi ñuy jàppale di ñu taxawu 1 2 3 mi ngi fiy ñëw di xool ndax ñu ngi ci jàmm ñu ci salaam donc moom amuñu fayam donc yàlla lañ koy bàyyil yàlla na ko yàlla fay li mu bugg tamit ci listam bii yàlla na ko am ci barke yonent bi yàlla na ko am parce que moom avancement wam nga jàppale ko mooy nga jàppale ñu avancement wam mooy suñu avancement. donc ñu ngi lay ñaan nga jàppale ko jàppale waa la ñu tamit ndax lépp mën a baax loolu daal laa amoon lu may wax maa ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax.